dundam yam soixante-douze ans la am ñun ñoo ko mag parce que man maa ngi ci quatre-vingt-dix ans kon <laughs> ñoo ko mag eh, loolu mu daan doxloo ci gàmm gi nag eh, bi Abdul Aziz Dabakh ñëwee mu sant ma ko ma di ko doxal di ko rendre compte li ci yegg si mu laaj ma moom na mu ko daan doxale ma wax ko mu ko dénk bu mu ci jógee itam sëñ Mansour ñëw sëñ Mansour moom ñoo ko àndoon daan dox comme xam na ma ma ne waaye papa Abdou jox baatu kër gi mën nag tànk yeeg baat beeg yépp laa la boole jox <laughs> ah loolu ñu amee ma ànd ak ñoom ñi di jox ordre lu ma ci jaaxal ma dellu ci ñoom ñu waxtaane ko joxal ma ay bi mu fi jógee Cheikh Ahmed Tidiane ñëw foofu ñu bokk ndey ak baay mu yónnee délégation moom <laughs> xalif bu raar ndax ku nekk xalifa te kenn gisagu ba léegi mu yónnee délégation ñu jógee Dakar ñu ne leen Abdou Aziz la mu nekk defuma ko yàlla moo ko dénk kon na fi toog di joxe ordre ñuy exécuter fu mu toog rek di ma rendre compte man maa ngi ci sama boppandi bu ma paree dinaa ñëw waaw loolu nag ci la nekk eh, ñu bokk ko ñun ñëpp ñoom ñi bu dee ci gàmm gi bu ñëwee dañuy def ay réunion joxante ay ndiktal ak ay tereek ay doxalin ba fi ñu toll ñu ngi ci loolu ah Tiwaawan nag di yokk ndax baat boobu lancé nañ ko taalibe yëpp ñu ngi fi bëgg am kër koo gis mu ngi lay bindi lettre dama bëgg parcelle Tivaouane